Euh, wax dëgg yàlla événement la boo xam ne man daf ma metti pourquoi parce que xale bi tout tànk la réew mi nag événement yu mel noonu ay alerte la yoo xam ne ñun dañuy fenatal mën a dégg nga wolof boobu maanaam dañuy esquiver dañuy fenatal maanaam mel ne duñ ko gis alors que ñi ngi gis ni sunu askan mi ngi yàqu yàqu-yàqu yi foo ko natt weesu na xale boo xam ne ñi ngi naan est-ce que am na 18 ans ñu ne daa dem dëkkoon ak ki nga xam ne moom lay bëgganteel te ñoom ñaar kenn mayewu leen soxna Mariama lii raaw na bala ñoo wax li xew loolu sax fi doon yow li kenn waxu ci te xale bi daa dem dëkk ak faram loolu mooy premier problème bi <laughs> danoo dem dëkk xam nga mën naa sax xam nga dëkk seen kër di sàcc di dem seet safar say waa kër duñ ko xam waaye yow ami waajur ami mbokk man des fois dama ne ana ay mbokkam te c'est pas la première fois bi mu ko njëkkee dal tamit ci appartement la ko dale moo ki ki ki nga xam ne moom la ji ñoon ni moom moo ko moo moo ko moo ko ëmb mais loola coow la jeex mu dem defaat laa même chose dem dëkkiwaat ak faram ci appartement te naan du benn appartement la ñaari appartement la bu ci ne am am faram ak ko moo moo ko wutal mais lii lu garaaw la xale bi san euh, ni mu sànkoo nii te ay mbokkam nekk ci ci ci ci réew mi mais loolu quand même ana ay mbokkam loolu c'est la première chose que je veux dire cest à suñuy kër tasaaroo na maanaam gis nga famille yàqu na Sénégal actuellement gis nga famille ci boppam lu ñu war a seetaat la ñun Sénégal actuellement famille yi lii ay alerte la te du moom kese xam na yeneen c'est que bosom dafa siiw rek mais yaa a d'autres yoo xam si ci chaque année nga gis ay cas yu mel noonu kon lii lu garaaw la euh, parce que gis nañ fi ay xale yu jigéen yu fi dem ci biir pandémie bi sax ànd ak seeni far ba dee am ci yaa ngi fàttaliku loolu yàggul donc ay VIP quoi ay doomu VIP parce que lu ci ëpp ñoom ñoo koy def doomu VIP wala artistes yi nañ ma jéggal nag waaw donc loolu nag dafa am benn jàngat bu ma ciy def aussi parce que gis nga ñun Sénégal ànd sàmm jikko yi comme ni nga ko waxee man ci laa bokk te ànd sàmm jikko yi li muy prôné mooy valeurs yi ñu ñu ñu ñu ñu ñu mettre ko en avant parce que ñun suñuy maam bu ñu ñëwaatoon duñ ñu xàmmee. ndaxte lépp li ñuy def nii ñoom bu ñëwoon dañ naan nañ gaaw dellu parce que ñii séquma ak ñoom dara parce que wax dëgg yàlla ñun dañoo mujjee puso bi mu réer actuellement nag loolu lu ñu war a jeexal la ñëpp a ci war a liggéey nguur gi nag da ci am responsabilité xamul tax nga xale bi nga xam ne moo def lii mu def nii am na émission bu mu génnee bu tudd seen petit gàlle man damay wax ne seen petit gàlle dañ koo war a dakkal lii mi nag il faut ñu ñemee waxante dëgg je sais que su ma ko waxee dañ ma mere mais man ragaluma ko ma mere liy dëgg mooy seen petit gàlle yàq xale yi tuut tànk yee ko tax a jóg ay xale yu ndaw yoo xam buñ ñë bu école tëjee ay CM2 lañ doon def ak yooyu wala ay sixième ak cinquième ay xale yu tuutee tuutee tuuti ñu bëgg leen def ay star ci seen école bi école ubbee nga xam dootuñu jàng te bu ñu leen waxee ñu ne élèves yi aay la ñuy jël mooy yàq bu dee élèves yi ngay jël kay mooy yàq la tax a jóg. élèves yi gën a ay boo leen jëlee def leen ay star seen école léegi dootuñu ñu wu ci njàng fa ñoroon ñaan moom moo moo gagné woon seen petit gàlle mais loolu ça pose problème te c'est pas la première fois gis nañ fi beneen xale bu jigéen bi euh, dem tuddee déer et puis dañuy jël suñuy kilifa dem tuddee ko ñoo xam ne ñu sell maam jaara ah maam jaara nga xam ni vraiment fu ñu ko tuddee tur yi sell na sell goo xam ne wóorul ci teg lu dul rek lu rafet ñu ne moom moo dem ca États-Unis futti boppam te seen petit gàlle la génne ñu ñëw xale bii tamit jey naa ñu ne seen petit gàlle la génne te ñu commencer te balaa ko la tëj lañ commencé compétition yi actuellement comme ñu ngi ci sori nañ commencé nañ bu yàgg lañ commencé woon ba école day ubbi ñu continuer di def ay final xale yooyu duñ concentré te ku xam jàng xam ne vacances sax nga war a jàng mais soxna Maria